되겠지. 예. Toujours dans votre acte du jour de ce 31 octobre 2024, ginnaaw Anta Babacar Ngom kii di Diégui Diop di la lionne de APR di gaynde Macky Momit moom ko invité ci plateau Sen TV yéey na ci yàbbi jëmale ko daal ci ñi nga xamante juge yi magistrat yi gendarmerie mooy police mooy politicien, yi nañu xam ne ni ay citoyens les ci biir citoyens les plus lu ñu sol rek benn casquette la boo xamante ni suñu ñubbee seen kër dañ koy summi donc nañu am toujours raison garder jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni ñi ngi koy jël comme acte nañuy déglu ji Diégui Diop amoon bu dee lañuy wax yoon da leen may ku agsi ci quelques mètres mën na dinaa vérifier le mètre le nombre de mètres bi ñu leen may bu ñu jegee camp militaire ñu tiré à bout portant si ñoom te defuñu ko. Mhm. parce que nee xama xam nga lan bañ. oui policiers yi ak militaires yi. Mhm. ñu jàpp ni que c'est des citoyens à part. d'accord les juges. Mhm. ñu jàpp ni c'est des citoyens à part les politiques ñu jàpp ni c'est des citoyens à part. nous ne sommes pas des citoyens à parce que damay dugal sama bopp ci pañe boobu xam nga lu tax policiers ñi ñi di ñi euh, ñi politiciens yi ñi ñi di leen jéppi uh-huh. nee na ku ñu jéppi doo jéppante xam nga lu tax la la mort est devenue banale chez les politiques parce que dañuy ci seen jabar denc seen i ay doom denc seen i ay rakk taxaw ni mortal combat taxaw ni génn leen si biti te kenn du gis seeni ay doom ci mbedd bi kenn du gis seeni ay jabar ci mbedd bi lii moo tax ñu naan ñu ngi banaliser de lii moo tax ñi ñi naan ku ñu woowati bul génn ci loolu parce que bu ñuy génn ñu jiital suñu ay doom wala ñu nit ñi kaay leen ñu wootee li ñu xam li ñu xam mooy jàmm li ñu xam mooy teraanga li ñu xam mooy waxante lu baax maa ngi ñëw kon ñoo ko dégg muy benn exemple boo xamante ni joxe na ko yoon dafa am lu mu maye ci camp militaire ay nit suñuy manifester marche ba egg benn metre boo xamante ni dañ ko jox ñi tiiree ci seen kaw te pourtant policiers yi defuñu ko en tout cas li nga xamante ni ñi ngi ko teg Bougane Gueye Dany ci ndimbal bu mu doon yóbbul ñi nga xamante ni mooy sinistre yi foofa ca Bakel yoon bu mu jël muy yoonu Wourossogui Bakel ak Corvois ki nga xamante ni mooy Diomaye bi mu jëlan bokkul di kii di Bakel bokkul jamono jooju ba waaye mi ngi woon ca jaww ja donc amuñu woon tey pour arrêter Bougane Gueye Dany donc lepp lu mu wax rek moy na policier yi xam que si ñun lañu bok gendarme yi xam ko juge yi xam ko magistrat yi bok xam ko politiciens yi xam ko xam nañu dal duñu ay personnes yo xamanteni ils sont supernaturels ay nit lañu ñu comme ay citoyens ordinaires la comme tous les citoyens lañu sol ben casquette la rek motax toujours dañu wara am raison garder et je crois que suñu bëggé am apaisement am climat social bo xamanteni dal du tendre je crois que ku ci nek da nga wara respecter chacun xamne que yow li la la yoon may donc bul nangu ay politiciens wala ay nit yo xamanteni ci si seen coobare bopp wala ay revanchard bëgg la teg la loo xamante ni yow après soo tëddee sa conscience tout tranquille da ngay jàpp ni que li nga def def nga ko malgré yow donc nit ki lépp lu mu war def daf ci war a conscience tranquille am muy li nga xamante ni ay kàddu yu jéegi jóob daal di yëkkati